Moustapha Niang Bio le tradipraticien borom garab yu efficace yaa ngi noonu jox la garab yi jox la consigne bi ba noppi jox la durée ma ne lii de ku mënul du ko def da nga am problème mu hémorroïde externe wala interne demal seeti Moustapha Niang bi da nga bëgg a augmenter poids ventre plat maanaam sa biir dafa rëy nga bëgg mu wàññeeku nga bëgg jël poids sans effet secondaire problème sexuel ñi nga xam ne dañoo amee chute de cheveux maanaam leel demal nga seeti Moustapha Niang Bio dépression lépp lu nga xam ni dafay métti doomu aadama dawal seeti Moustapha Niang bio mi ci traitement yu efficace yi ma ni la mu làmboo yëpp ci ay traitement mënuma ko lim xanaa mosal leen ci as kay la ci des ma bàyyi ba ngeen yëggal seen bopp ana ñi nga xam ni ndoxum siti da leen sonal daw leen gaaw ci Moustapha Niang bio yow mi am ballonnement looy xaar jëlal numéro bi gaaw defal 76 379 71 29 76 379 71 29 9 bu fekkee yaa ngi Touba mën nga dem ci garage Daaru boo composé numéro bi incha allah fi nga nekk ñu fekk la fa yow mi nga xam ni nekkuloo Touba jëlal numéro bi gaaw mën nga ko woo su la neexee itam mën nga ko contacter via WhatsApp fu mën a nekk ci Sénégal rawatina ci àdduna bi yépp ñang bi yow dina fexe ba nga jot sa garab expliqué la ni nga koy jëlee tranquillement kon nekk mi ngi noonu mbokk yi yéex ñàkk la képp ku fi jàmbatati rek daf la neex ndax ñang bi la solution est là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 أسرق في محبة شيخ أبات ثم امتثال أمره حيث وراد وترك الانقراض مطلقا ولو بباطن عليه فيما خروا ومعه سلب الاختيار لحسن ظنه بلا إنكار فكل من جمعها صفات من المريدين فيدرك سخات من جلني خير خديم المصطفى فيغني عني وهو بمصطفى من جلني